jamono diggante njabi ak wàqi ku ñuy wax Mouhamadou Roqaya Fall mooy way juróom wu góor soxna na bu Njaay mooy way juróom wu jigéen doolu woon nit jaayil ku jàngoon la ba am xam-xam as gorle nag di ab jullit bi muy ñëw ci sëriñ Touba it ànd naa kom xelam aku fitam ak dooleem nangoo liggéey te am wërsëg di ko wër ci coobare sunu borom ba fekk ko mbacke Kajoor wax na ne mbacke Kajoor bam fa ñewé mi ngi jëk gis ku ñu wax serigne Adama gi mu nekk ci ndigalal serigne Touba mu yoni won ko ci loolu la sabab lo ba and ak mom dik ci serigne bi waye bimu mu serigne bi tam, doxin wa mu doon dox togul ba serigne bi ne ko defel ma ni sama digënté ak yow la mu ëndaale moom yàllaa ko ko binde woon mu dëppoog li sëriñ Tuubaa bëgg bi sëriñ bi bindee itam ba nu xoolee ay meloom kon sëriñ bi waxaale na ko ci biir jëfinam ndax murit la bëgg doon te murit la sëriñ bi woote sëriñ bi wax murit ni mu war a mel ñu xool melo yooyu gisuñu ko ci kenn ku dul Cheikh Ibrahima Fall keneen ku ko yor danga ko cee yi li sëriñ bi wax ni sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nasamtu a xaw faxtiraar asidqu fi mahabbati seyxi abad sumam tisaalu amri i ay suwarat wa mahahu salabu lixtiyaari li usni sannihi bila inkaar mu ne na fa kullu man jamaa asi i sifaat min al muridina fa yudriku siqaat nee na murid saadix ñeenti melo la Sëriñ Tuubaa ne day bañ ku dugg ci melo walla neex defe ne murit nga ba noppi woru mooy li nga doon laaj léegi sëriñ bi am na ñoo xam ne jàpp nañu ne seen murit dañu koy doxale na mu leen neexe waaye yoonu sëriñ Tuubaa demewul noonu murit ab yar ak teggin ak nangoo liggéey ak jaamu yàlla bàyyi lépp lu bon lu baax loo man nga def ko lool sëriñ Tuubaa ne ku mel nii jot nga saaba yi tobban yonante bi alayhi salaam te teg seen tànk ci dëgg woow melo nag Cheikh Ibra da ko yoroon moom Cheikh Ibra bi mu bëggee Serigne Touba wu ci lenen wuyu gi ñi wuyoo Mbàkke Cheikh Ibra ko andi ci yoon wi kenen kuy wuyoo ab am aw santam Cheikh Ibra nga ci roy waye kenn musta wuyoo ab am aw santam nam ak ka lañ daan wax Cheikh Ibra dik rek teunk bopam ci buñu ko wowe mu ne ci kenen ku sant kenen ku yaakar ku sant jengit buñu la wo da nga naan jeng rek ndax loolu ci Cheikh Ibra la bayiko ko rafet na Cheikh Ibra andi tam fa op serignam tek ci ko tok fi souf melni jam buñ jënd sa tay ak bakkan Cheikh Ibra andi liggey ba nopi jox ko sëriñ boole ci ñaanal ko ne ko yàlla nga fi yag lolu Cheikh Ibra ko ni ci ci ci l'islam bi mom lolu nak bok na ci melo Cheikh ibrahim Fall bawul Mouridine moy netal be ngay seen mu nek ci ginaaw ki yore caméra bi Cheikh ibrahim ngoogee ak ñi mu àndal la Cheikh ibrahim Fall serign bi bay Fall mom mu may ko jub kuy jëfe ndigal te bàyyi tere ñuul ci kaw gu sax ñuul ci mbuum mu set ñuul ci sax yu daax ñuul ci tànk ci ak jub la ak jub xam ne sama borom daan nga di ko def xam nañ dina nga bàyyi ko loolu mooy bàyyi faal waaye ñuul ci sax boobu sax ak mu mu waxal rek loolu nekkul foofu waaw la ne ak ثانية نعجب فيه لجمعة ثانية من المحرم كل